que dañoo nekk mois boo xam ne dafa xaw a crucial ñu bëri dañoo tiit ndax li ñuy dund jamono ji ci ay jafe-jafe ci wàllum fitna loole avant ñuy ñëw ci xëy na responsabilité yi ak euh, solution yi naka nga ko comprendre la base c'est quoi. boo xam nga lala euh, la bitta man la te itam euh, lu ne mën nañ xalaat Sénégal. Mm-hmm. ba mu des woote ne. nañu dem nan dem palais in génne président makisal xam nga politique ñun ñëpp dañu war a euh, maase si lenn. Mhm. tënku si moo la niin la wutee nguur euh, ka mel ni président Mamadou Diop Decroix dala wax mu ni ba jëkkoon ba lii la joxe pal moo la taal ab dëkk am doole ñëw toog mhm. loolu amatul léegi bu fekkente ne une dane démocratie maanaam ay carte moo la moo la fal benn d'accord nu ñépp nu tënku fii u toog mi ndakaaru gi ala woon na république ba ko kenn fàtte mhm. Sénégal daawul doxe nii amoon na Kajoor am Bawol nun ñëpp ku nekk am laa bàyyi ci sa ay moomeel ak sa ay mhm. sañ-sañ pour nu mën a defarab république bon am na laa xamante ne mu neex nu mu naqadinu baa baa nu xullee nun lébu yi lii nu républicain bare na li mu nu indi li tam mm-hmm. bare na mm-hmm. waaye daal daala jàppee li li liw amul u jëndee que li li mu la indil mm-hmm. du dëgg ba ko defee il faut mu am yaa xamante ne foog nu d'accord ba nu d'accord ne si république la nu nekk baa bëggee falu daxaa def si anam yaa xamante ne si jàmm nekk képp que jéggi sart boobu noonu daxala jéggi yoon. mais ñi nga xam ne tey jii peut-être ils euh, ont ce discours euh, li ñuy joxe comme explication mooy li ñu dund wala li ñu leen nar a teg loo xam ne xëy na sax du leen permettre ñu dem ci démocratie bi leen di jox euh, nguur gi. parce que boo seetloo aussi dans un passé récent Sénégal dafa dund yu mel noonu ñoo xam ne jàpp nañ ne amoon nañ doole mais dañoo jaar ci wàlluma justice. Euh, ñoo def defuñu euh, perception la ba bokkuñu tey jii nii donc te ñi tenir discours boobu est-ce que tamit ils ont un peu raison euh, voilà de tenir un, un, un pareil discours Mamadou on n'a jamais raison de prôner la violence on ne peut pas avoir raison de prôner la violence il faut qu'on soit ferme et d'accord sur ça loo mën di subir li ma waaw li ma li ma mën a fii nii dëkk bii nii acteurs politiques yi fi nekk lan laa xelaat lan lañu daj la Mamadou Dia dajul ñiin la waaj tëj président Mamadou Dia i ndëkk tëj mu nekk première ministre lan laa xelaat la fi acteur politique daj tey le président Abdoulaye Wade dajul mm-hmm. juróom benn yoon in tëj na ko taxul mu ne nan dëkk bi Cheikh Tidiane ma mag ma si mm-hmm. in tëj na ko fi Serigne Moustapha si mii am nañu ko faral am nañu ànd ak moom in tëj na ko fi mu neex mu naqat in tooñ ka wala yoon jàpp ne dax ji gi sarta dañu ko muñ dëkk bi jaral ñakk li ma bëgg a wax foofu moo la amul génn dëgg gala tegu ci kaw ci politique ci politique wala daxaal oote une nan taalab xare maanaam nan jot nguur gi par les armes wala daxaala wax ne daxaala jot nguur gi démocratiquement dès ba fekkente ne daxa daxa daxaa opté par la voie démocratique daxa am ay limites. Mhm. limites yooyu il faut que képp këll le politique si dëkk bi tënku si mu neex mu naqadi ah.